ya jàkkaarloog yàlla ja dee jàkkaarloo tam ak askanu Sénégal gi lee directeur info la dama ne la ba day président Macky Sall waa jàppale ne ne tey jile la xew-xew woo waaye lu la kon ci Sénégal gi maa la ko wax ndax lu tolloo fukk ak juróom ci ay njiitum réew day ñu leen di xaar kon ci Ndakaaru ngay jël joob dama la ay délégation yu rëy yoo xam ne ne kon danañu fi dawal président Amérique mi kon di Donald Trump day ak Emmanuel Macron bu France li daa judd ne caw un leader ne waaye ne xoon naa jabar ja tamit day c'est normal dama ne Marième Faye Sall kon complice am la de eh, loolay dëgg le quotidien yéene kaay ne wàllum investiture président Macky Sall ba tëj ja suba ga day waaw dama la magistrat Pape Oumar Sakho moo jiite kon xew ma le pape de la cérémonie les éco yéene kaay ne la Macky Sall day waaw defoon na ko de ma ngi koy defaat ma ngay jàkkaarloo waat laa nii ak kanamu la dikk na investiture googe gis nga wàllum investiture googe loolu kay investiture double XL ndaw lu rëy ngir président Macky Sall mi la ay bii ay bii rek ay bunkar rek ndakaaru njaay jël jóob la ndakaaru njaay jël kay waaw dama la bunkal yi xam ne kon ñoom ñoo nekk ci doonu Afrique la la ñuy doxante kon dig daje ay délégation yoo xam ne ne day jóge di xaar te di xewee ba day waaw dañu koy tëj 8 h ba 11h yéene kaay ne dama ne bloqué leen bi Macky day waat eh waay jamonoy Senghor juróom-ñeenti fan ci weeru avril kon 1963 ba ci Macky Sall ñaari fan ci weeru avril 2019 débu leen fàtte nag Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade waaw dama ne gis nga di waat c'est un faux serment ah kay Dakar Times de xanaa xamoo leen ne ñun sénégalais yëpp dañoo war a prêter dañoo war a waat ah, ah. comme ni ko président de la république di defee waaw moo xam seeni kilifa seeni dirigeant di leen laaj lu bëree bëri waaye ñoom sénégalais yooyee di laaj waaw est ce que la war en tant que citoyen koy def looloo jar a laaj libération yéene kaay ne day waaw walaay ndam la ci lu rëy ndaw lu rëy fukk ak juróom kon ci ay njiitum réew ñooy dikk ñoo xam ni kon ay njiitum réew leen woon dañuy dikk ay personnalité ay kilifa yu fort dikk ci Ndakaaru Njaay jël joo dama ne la Macky waaw yónnee prestation de serment ba taxawal gouvernement bu bees Gaston Mbengue ci évidence yéen i waaw nee na man ko xam Mohamed Boun Abdallah Dionne la sama raka la bu ñu demee daal ba ko soppi di ko changé man day Gaston Mbengue li ma xalaat mooy Macky Sall mën ta am ku gën Aminata Touré ah, Gaston Mbengue ne maa la wax li lée parce que Aminata Touré day lu ñuy laaj ngir nekk premier ministre mi ngeeg moom Aminata Touré mën na xam na elle est compétente la ndaanaan la audacieuse ne lu jafe lool ci politiciens yi yi ñu toll nii man Gaston Mbengue maa ko wax dama ne la laale naa kon ak responsable affaire yu bëree bëri kon xam naa leen waaye ku gën a fidèle gore ci Macky Sall ne Mimi Touré mi lée dama ne la amul man Gaston Mbengue maa ko wax termine yéene kaay dee la mu wax mooy juróomi atu Macky Sall yi lée waaw ak lañ ko sambal ci ndënd te mu koo def réew mi jiite ko mënul ne day miti sur saane dee juróomi at yi kay miti dëgg lay waaw ma ngay yor kon ay département yu bare bare waaye ndool gi nga xam ne am na ci mim réew nag ñi nga xam ne amuñu liggéey di wàllum chômage ba nag ak yeneen ak yeneen sax yoo xam ne kon ñooy xaar président Macky Sall bi le yéeni kaay daaw da jàm bi ne Aminata ministre élevage maa la ko wax termine yéene kaay ne gouvernement parallèle mardi daal Babacar Diop ak day nee nañu dañoo war a dëggaat ay assises nationales évidence yéene kaay ne Kazu Rajab day tay tey la mu am mu am tey la les si ko yéene kaay ne Sénégal de boo bëggee gañ ay waaw da ngay de mar taali xoolal ma waa kër jox xaalis fonctionnaire yi kon ak médecin waaw waaye justice bu Amérique yi da feeñal de ñoom waa présunis looloo tax nag ñu joxe ñaari téeméer ak fanweer ak benn kon ci ay millions de dollars ngir bañ kon ay topp ñooñu Madické Niang ñu ngi leen di topp de ubbil vox populi nañu ñi nga xam ne ñoo àndoon ak daal au pèlerinage ñiy yóbbuwaate Màkka fa la doon liggéey Màkka waaw waaye doon koo dàq ndax ma diggéey lay àndal eh waay Samba ginnaaw Cheikh Abdou Ndiaye moomee ma ñangaan faal dàq nañ ko ci assemblée nationale ndax ma diggéey daal lay àndal eh waay Samba yéen kaa gi ne lañ fi waxoon nag ne Sénégalais téeméer boo jël juróom benn fukk ak juróom 65 pour cent amuñu gaanu waay ay waale maanaam douze directeur général bu ONAS day ANSD weddi ko ak PEPAM ñoo amul ay gaanuwaay de ay toilettes douce yu tax ñu naan douce ca yàlla <laughs> alaaji walaay sorantewul ak li ñu waxoon téeméer boo jël ci yi ñu ne fanweer ak ñaar amuñu ay gaanuwaay di ay duus yu tax ñu naan duus waaye lii doy na waar te duus day mooy sutura ci kër boo paree ma ne la alaaji tëjal Ndeye Mariam Ndiaye. asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm tey jii la njiitu réewum Sénégal di Macky Sall di tàmbale nag ñaareelam ak mandaam gu mujjee cuurekaay bii di ci quotidien nekkoon li ko dalee tey Macky nag faw mu daal di sukkandiku nag ci li nga xam ne moom la jotoon tàmbali nag ci mandaam bu njëkk bi xool ba xam naka lay gën a feddalee li ni mel nag ci ñaareelu mandat bi wala boog su fekkente ne sax dafa am ay rëq-rëq yoo xam ne dañ ko cee nemmeeku mu fexe nag ba daal di koy corriger ci ni mu waree loolu sax moom moo tax ba cuurekaay bii di ci quotidien di ne li ñettu ci secteur yëpp lan la fi Macky Sall jot a def ñu daal di koy tàmbale ci wàllu politique rawatina nag na muy yore réew mi ak tamit loo xam ne dafa jublu ci wàllu démocratie eh, fi ci mim réew ñoom nag la ñu gis moom mooy daal ne dañoo seetlu na ne ci juróom-ñaari yi nga xam ne nag njiitu réew mi ma nga nekkoon ci bopp réew daal dañoo gis nag ne mosul juboo ak ñi nga xam ne de ñoom ñoo nekk ci l'opposition bi dafa mel ni sax ne ngàññante gi nag moom moo ëppoon sax li nga xam ne daal moom lañ doon faral di amal maanaam daal waxtaan yi moom bëriwul woon ak ñi nga xam ne

yu bëri yoo xam ne daal dañ ko cee nemmeeku ci wàllu ay jafe-jafe ak ci rëq-rëq wante jolikaay bi di Sud Quotidien ne fi nga xam ne nag fa la njiitu réew mi war a xartànku tubéyam ma nga jublu nag ci wàllu wér gi yaram ndaxte daal ñaxtu yi bëri na ci wàllu gi ni mel te it nag askanu réewum Sénégal li ñu soxla yëpp nag ngir war a mun a faju ci ni mu war daal des na lu bëri jolikaay bi di direct info ne kon tey ji Macky Sall dina jàkkaarloo a askanu réewum Sénégal daal di waat kàngaam suñu naataango yi nag duñu xamal ne ci wàllu cérémonie boobu moom bëri na ay kàngaam yoo xam ne dinañu ko teewee vox populi sax moom la mu gis boobu mooy ne xew-xew boobu moom bu mag a mag la nar a nekk fii ci mim réew ndaxte lu weesu ñaar fukki njiitu réew dinañu ko teewee ak ñoo xam ne dañoo jiite ay gouvernement Macky Sall sax fi mu nekk nii nag démb ñoom ñëpp daal dina leen euh, dalal le soleil di ñëwaat sax ci ñi nga xam ne nag ñoom ñooy ay kàngaam yoo xam ne dinañu teewee prestation de serment euh, bu njiitu réewum Sénégal di Macky Sall réew mi mi quotidien mom sax ma nga ñuy limal nak yi nga fu mu nekk nañ ñu ci Libéria di George Weah ki Éthiopie gouvernement au Ghana ak qui euh, ki République démocratique du Congo de Félix Tshisekedi bu ki Guinée-Bissau de José Mario Vaz Mali di Ibrahim Boubacar Keïta Togo di Fornia Simbe bu Congo di Denis Sassou Nguesso bu Gambie di Adama Barrow bu Mauritanie Mohamed Ould Abdel Aziz ak bu Rwanda di Paul Paul Kagame ausoleka yi bi di la soleil ne nak dafa mel ni ne guléet ñuy nemeku mu bëri ay njiitu réew yo xamna nak dañuy téwé fi ci biir Afrique ci ab de serment suñu naataango yi sa di laajte lan mo waral li ni mel wante dafa mel ni ne ñoom ñoo ngay tontu seen bopp ndaxte nee nañu daal Macky Sall mom su fekkente nak tay ji jii njiitu réew yu bëri bëgg nañu ñëw nag dal di wuy ji nak tay ci cérémonie de prestation de serment bi liko ko waral moom mooy ne élection yi fi ci mim réew nañu ko amalé nak dafa jaar yoon amul ben rëq-rëq buñ ci nemeku rax ci dolli Macky Sall ci wàllu diplomatie moom dafa gën a fësal Sénégal ci wàllu gi ni mel te it fépp foo xam ne nag fii ci biir Afrique moom soxla ko fa dafa mus a dem wuy ji léegi nag la ñuy laajte moom mooy ndax l'opposition bi nekk fii ci même réew tamit tey ji dinañu wuy ji euh, ci woote Macky Sall bi fële nga xam ne moom mooy ca Diamniadio jolikaay bii di libération mi ngi ñuy xamal ne daal dinañuy yónnee nag seen invitation ñeenti candidat yi nga xam ne nag ñoom ñoo doon xëccoo ak Macky Sall yónnee nañu tamit léegi indi li des moom mooy xool ba xam ndax tey jii dinañu teewee nak ci walu xew-xew googu jolikaay kay bidi Dakar Times né nak tey jii du Macky Sall rek dé mom mo wara a waat tey sax askanu réewum Sénégal yépp wara a waat nag ngir fexe ba ñëpp bolo doon ben ngir suqali nak réewum Sénégal Dakar Times nekkoon tey jii mom ñëpp wara a prêter serment ñu jéxalé ko ak jolikaay kay bidi Les éco nag ci ngi ñuy xamal les départements américains de la justice ñom dé dañoo japp jàpp benn kërub kay bu ko fa li nga xam nak mom moy mooy ca Allemagne boo xam ne dafa yëngatu ci wàllu wér gi yaram ñoom dañoo daal di xamle ne dañoo doon ger ay dëkk yu bëri rawatina nag ñi nga xam ne daal ñoom ñoo fa nànk lépp lu jublu ci wàllu euh, wér gi yaram ngir nag ñu bàyyi leen ñu daal di fay gagné ay marché wala bokk ñu wéyal nag di fa amal seen i marché ñooñ ñooñ nga xam ne nag ñoom ñoo doon def li ni mel ñu tudd Fresenius Medical Care ñoom daal di nañuy xamle yan dëkk nag la ñu jot a amal li ni ba sax daal di ci lim dëkk bu mel ni euh, Sénégal am na yeneen dëkk yu bokk ci biir Afrique yu mel ni Bénin Burkina Faso euh, Cameroun Côte d'Ivoire Niger Gabon ak tamit Tchad yoo xam ne daal bokk nañu ci wàll gi ni mel nee nañu nag këru kaay googu daal ba leen département américain de la justice euh, jàppee nag euh, ñoom daal dañoo mujjee nag fay ndampaay bu takku lii moo nekkoon mbokk jullikat yi li gën a fës ci biir jullikat yi ñu leen di ñaanal njeextu revue de presse acca ñi rongandoo watali jam ñaajo xel yépp fa la ñu dëgmal fekk fa président Macky Sall le quotidien yéenekaay feesal ci xëtawu njàkk ne tey lañ koy samp mu tàmbali ñaareelub mandam di rupp juróomi at loole nag tey lay waat jaayantek askan wi ci weti ñi nga xamante ne dañoo xelu ci wàlluk yoon tolli ci juróom-ñaar yéenekaay gi ci suufu xëtawu njàkk daal di feesal ne cosaan lu ci milim réew di Sénégal ab njiitum réew laataa ñi daganal ak palam faw mu daal di waat vox populi fellu ko ne xew-xew bi njiit réew yéeg nañu roppalaan wàcc si ci aéroport Léopold Sédar Senghor mu nekk ab bu mag ci njiit yi cosaanoo ci denduka Afrique gi ak yi nag yeneen kilifa yu mag yu bàyyi ko fu nekk ci àdduna bi yéenekaay gi lentu la ca loolee dafa xayma ne lu mu gàtt-gàtt président Macky Sall junni ci ay gan daañu ko seede tey buy waat loolee ak i njeexitalam nag bokk na ci dembeeg dikk bi gàllankoor ci autoroute à péage bi suba teellee tàmbale ba digg ba ceeg Sénégal beneenub yéenekaay bu jëmale xalimaam ci wàll wi moo di Les Échos ak investiru président Macky Sall mi mu nekkoon tey lay jaayantewaat ak askanu Sénégal wi ko fal ak it waat ci kanamu borom bi te bokk ca ña koy seede Nicolas Sarkozy doon fii ci ay jamono njiitum réew Paris la France tersi na bu yàgg mu doon ab xew-xew bu am lool ci taarixu politique u ku jëkk politique gi nag daan ci wàll yaan ak yi seeni feem ñoom la jàpp ba nag wala dayoo ci xew-xew bu ni mel daal di koy soofantal ci yéenekaay gi di Vox Populi ci la ñu seenaat maître Madické Niang ab nataalam bu ne dàng yéenekaay gi di ñu yeggee ne képp ku jege ñaalem naka ta takk ak ndombal tànk buur jox la ko jamono ji say boo nga waaj ne xam ne daañu ko tekki dàqal la ca biti doy na ci misaal Cheikh Abdou Ndiaye bu délégation générale bu pèlerinage football nañu ko bu yàgg loolee seddagul ma jàngaan faal ma ko sasoon rëkk a ci wàllu moo di Aminata Mbengue Ndiaye source a mo ñi xey dektal ne ñaar fukki milliard nak jot nako ko ci dirup ñaari at yu naroon a sànku ci pexe ak njub la nag ñi wax ay intermédiaire ñi leen doon jëndale ay nak yi nga xamantene dana tax Sénégal mom bopam ci walu ko dundu lamu yittu wo ci walu ko mew fi lek atum 2021 tollu ci juróomi téeméeri millions yi litre limu gettu nak gañu waroon a jënd nag toll ci junni ak téeméer ak juroom ñett fukk ak ñett yi ni kay gi ni nak yoy nak ben bu nek bu jaaré ci yoon téeméer ak ñaar fukki junni lañu ko wara a waaye ñi ñu dénk wàllu ko liggéey ba dañ ci doon def naka sadul noonu di jëndee nag wu nekk lu toll ci ñetti million ak lu teg yéenikaay gi fësal ci xatam wu njàkk ne ñooñelee doon amal ak ñaawteef nag Aminata Mbengue Ndiaye mujj naa dugal loxoom ci seen gémmiñ fexe ba ñu goxi bong bong bu ñu sexoon ñi may xel wàllu ko wér-géram gi ak leneen lu ci yeesati doon wàllu ko ger gu koy lëmbee ak frénuse médical mi nga xamante ne ak kër gu mag la ngir jote ci wàllu ko marché ci xëm Sénégal la ko ak lenn ci yeneen réew ci jëndu ko Afrique gi wàllum ger googee la doon jëfandikoo teg ko ci taabalub xamante ne ay médecin lañu waaye tamit ay fonctionnaire yu mag loolee ñu nekkoon dara muy caa sotti ak xarañte fukk waa Amérique yi nga xamante ne toppandi nañ ko ba jàpp kër googee loxo ci poos taxit nag fi mu toll nii ngir moytandiko ak ay daan ma ngay jéem a buux ay koppar yu toll ci ñaar téeméeri million ak fanweer ak benn ci xaalisu dollar ngir moytandiku ñu teg ko ay daan yu diis yegg sax ba tëj ay buntam bu ko defee dootul mën a def ba muy dindi ci wàllu ko wér-gi-yaram ak nañu ko tëralee charte yi ci àdduna bi wér-gi-yaram moom cellange moo koy maye rawatina mbirum gànnuwaay vox populi ne waa ANSD doon kër gi sàll wàllu ko xayma ak natt ci dund askan wi lañ fi feesaloon ci ay xibaar directeur général bu ONAS xëy naka teppi xam le ne kon askanu Sénégal ñu bari ñu ngi dund te amuñu ay gànnuwaay lim bi toll ci téeméer boo jël fanweer ak ñaar directeur général bu ONAS ne loole ak njuumte weesu ko ñoom ñi nga xamante ne nag ñoo gën a jege askan wi ci seen wàllu ko cet ak cellal lim bi mi ngi toll tey ci téeméer boo jël juróom fukk ak benn kon lu nu mel nañ ci amal ak jubbanti sàkk ci ay pexe ki saafara ngir fanqal askan wi ay jafe-jafe wàlluk wér-giram yu mën a bàyyikoo ci wàll wi ca la ñu walbatiku rek yem ci sunu làmb yéenekaay ngir àddu ci wàlluk arène nationale bi ak liñ fi siiwaloon ci ay xibaar niki démb jëm ci nekkoon Tapha ak Papa jóge nañu ci écurie Fass gi ne loole nag xibaaru tooke la gu ñu wax poisson d'avril baadu Boy Niang 2 dafa lekk tooke am det ak jafe-jafe ba mu nar am ci diggante makal ak 2 jàngat bi ci yéenekaay gi doon lu mu firnde lekk nataalop Boy Niang 2 muy nañu ni ak gaynde championnat d'Afrique ci wàlluk lutte olympique atum sigg na ci jaare ko ci doomam ji di Adama Diatta mi mu nekkoon jot na ab médaille door bu dee ci wàllu ko jigéen ñi soxna Anta Samb ngañaayam ab médaille xaalis la baadu day doon lu njëkk Ama Baldé def ab année blanche yéenekaay gi moo samp laaj bu ni mel toftal ci nataalu mbër mi di Ama Baldé ci jëmi boppam mi mu jàpp ne niki ci atum 2008 ba tey day mi ngi def jaloore waaye tey jile gisul baa mu dégg takk nderu promoteur bu ko war a tëggal ab combat.